mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tudde ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobule boobule bés nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu lislam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Khadim Rassoul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am six millions de francs CFA ka topp cinq millions cinq mille francs ñetteel ba cinq millions fukk ak juróom-ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog trois cent mille francs CFA c 3 ngi ko yëgal jiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place neuf heures ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. بِرَبِّكَ بِمَجْنُونٍ waaw alhamdulilah di nuyu bu baax yéen yéen gàttanoo nuyoo bi ko delloo gannaaw bi noo sunu borom mi nu li gën a sant sëriñ bi muy suñu lépp tey ëllëg ndax lu mat a faggu faggul nañu ko te jubóo na ci borom lu mat a ñaan ñaan na ko te nangul na ko kon sëriñ liggéey sëriñ bi rekk fi nekk bi rekk fi nekk eh, liggéey bii nag moom ndokk bi nga xam ne man caa bokkoon fii lañ ma fekkoon ma ànd ko yéen ndokk bi nga xam ne caa bokkoon waxoon naa leen nag ci booba itam bu ngeen amul bu ndok lépp mën naa nekk ci seen loxo noonu laa ko noonu laa ko xamante noonu bu amul bu ndokk amul te dëggu am fu ngeen bëgg màgg fa dana dana ko weesu dana waaye lépp nag nay sëriñ bi lépp nay sëriñ bi bu daal lu ci rax lu néew néew néew rek mën na ko yàq ndax sëriñ bi raxul raxul dara digg ba borom sëriñ bi raxul dara diggam ak borom kon liggéey bii liggéey liggéey boppam la dëgg la am chance ñu am tawfiq eh, ñu tudd leen ci liggéey bi waaye lépp tawfiq sëriñ Tuubaa la ak paggutif ñeen xam loolu xam ne da ngeen am tawfiq waaye liggéey bi liggéey bi sëriñ Tuubaa la tey ni mu doxee ak fii mu àgg niiw na mbooloo mu jóg dara tax leen jóg ñu jóg àgg fa déedéet dëgg suñ Tuubaa la moom moom mooy moo moom mooy kawee di di wéy kon da ngeen am tawféex rek waaye dëgg suñ Tuubaa la ngeen ngeen waaye nag ngeen xamee ko noonu da ngeen ngeen am ngeen tawféex yi nag da ngeen di xam ne seen tawféex la rek waaye dëgg suñ Tuubaa la dëgg la kon taxawal ngeen ko waxoon naa leen bu ngeen amul ndog fu ngeen bëgg màgg fa rek dina ko mën na ko dina ginnaaw nag alhamdulilah rabbil aalamiin yéen lii liggéeyu Sëñ Tuubaa la am yéen am tawfeex ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci mbooloo booloo ci booloo ci kawam parce que ne ànd di sa liggéeyal Sëñ Tuubaa loola alhamdulilah rabbil aalamiin lu mën a wéy la lu mën a wéy la ci kaw ngeen xam ne liggéey bi Sëñ Tuubaa rek la yoon kenn ku ci il faut ngeen xam ne liggéey bi Sëñ Tuubaa rek la ngeen positif bi di jiitu positif bi day jiitu jublu gi jublu jublu gi tegu ci bu ko defee noonu xam ne liggéey bi Sëñ Tuubaa la ngeen ànd ngir Sëñ Tuubaa di liggéey Sëñ Tuubaa kon kon tawfeex Sëñ Tuubaa jii nga xam ne moo ko moo leen di gàttandu rek moo di niital fi ngeen am fi ngeen di aw kon loolu rek mooy li ci am solo xam ne liggéey bi dëgg la taxaw na waaye lépp ci bàggu tëf sëriñ bi la waaye dina am tawféex ci taxawal liggéey bi kon nag ngeen fexe rek fu ngeen bëgg fu ngeen ko jëmee rek mu àgg fa dara leen mënu doon leen ko may nag loolu lagi mu sëñ tuwaay kese mm-hmm. sëñ lépp na bi tax na ngeen taxaw ngeen taxaw takku saayu fas xam ne da ngeen nekk ci liggéey sëñ tuwaay dëgg nag ci saayir si mënuñoo ñàkk daal tudd dara ndax comme société ni lu mel ni société comme dafa mel ni kon société la société ndax doxinu jamono la mm-hmm. waaw man dara newu ci waaye nag yéen nga nga xam ne seen société bii moom sëñ Tuubaa ko moom nii mu doxee ak fi mu àgg sëñ Tuubaa rek la waaye mën ngeen sant yàlla ndax yéen am tawfeex bi ñu deen ci tudd la ca des la ca des nag la ca kon mooy yéen ñi yéen ñi yàlla taw defal ngeen ànd ngeen ànd ci ngeen góorgóorlu nag déggoo ndax déggoo gi gi mënu ci ñàkk moo leen dimbali ba ngeen ba ngeen ba ngeen ba ngeen ba ngeen mën a koo saytu mën koo yor doxe ko doxe na ngeen bëgg a doxe màgg mu wàgg fu war a àgg il ngeen déggoo euh, yaakaar naa ne déggoo gi li ci li ñàkk déggoo gi li ci indi rek moo di dafa dafa dafa dafa taxawul dafa dëgëragul dafa dëgëragul ndax mbirum bi rek la moo ko àggale fi mu àggale ginnaaw dëgëragul nag ala li koy dëgëral muy ngir ànd te déggoo ngir ànd te déggoo te war na wurtu wurtu jafe bu ci àdduna génnee rek bu raxul rek dana yomb li may wax ak caa man ci laa bokk yàlla dogal a bokk da ngeen fay ñëwoon ba bokk ci ba léegi kon war na maa wax ak yéen kenn laa ci yéen man naa wax war na maa wax ak yéen ak jër kër bi ngeen ma jox mu ñaari cër yooyu laa laa laa ciy waxee kon faw déggoo am waaye mën naa yomb ndax ni ma ko déggee ay ay ay jooyoo ngi ci ay jooyoo ngi ci waaye jooyoo gi li koy dindi rek muy dëggu ci neen liggéey bi liggéey bi Sëñ Tuubaa la kenn ku kenn ku nekk ci yéen mu laxa saa yu jàpp ne liggéey bi Sëñ Tuubaa sédd dara nag ndax lu ngeen ci sédd rek ci wàllu adduna rek du ngeen dem kon déggoo digg digg amul solo xool leen xool kenn ku ne la ko la ko ci dugal liggéeyal Sëñ Tuubaa la na na na dëggu rek dana jeex bu ko defee ngeen ànd yéen ñëpp ñeen ànd yéen ñëpp xam ne benn liggéey bi benn la lu gën doon doon mbooloo itam liggéey bi benn la sa ngi Sëñ Tuubaa rek kon il faut ngeen déggoo ci seen biir ndax mooy tax ngeen mën a ànd ndax ànd gi mënu ci ñàkk il faut que ñu déggoo ci seen biir li dox seen diggante it ba amul solo yooyu ci am na ci am xam naa ne amul solo bu dëggu gi amee rek jublu gi am rek ngeen xam ne Sëñ Tuubaa ngeen di liggéeyal lépp dana na sax lépp dana na sax ngeen xam ne itam nag bu ñu nee société ay société ngi ci ngi ci réew mi waaye benn société boo xam ne war na ci mën a ëpp doole bi daanaka amul il faut ngeen jógaat nag gën ko fas ko gën a gën a dëgëral ngeen koy gën a dëgëral ma ngeen bañ a te xam ne suñu tubaab yi la sedd ci li nga xam ne nag mas ma war maslaam la defar rek la masla masla masla baatu arab la mooy mooy yéwénal il mën a ñàkk da ko da ngeen di dellu saar nag tegaat gën koo tegaat ci yoon suyété la ngeen gën koo tegaat ci yoon ndax moo leen moo moo moo moo doon moo moo daanaka mooy mooy boom gi leen di boole takk yéen ñëpp. te nga la ca jiitu mooy ala kulli xaal ngeen il faut ngeen def li mu laaj da ngeen ko def da ngeen di seet dangeen ngeen da seet ñu xam administration ngeen won leen société bi won leen ñi ko ŋànk ñu xam kenn ku ne la jaadu ci moom ci masla ci àqam dax ku tënku ku ci tënku ci yoon liggéey bi rek kooku dafa da nga am sa àq boobu àq jooju il faut ngeen ñi xam ne xam ñi nga xam ne xam ne administration il faut que seet yi ñoo xam ne xam ne leen ñu tëral leen euh, ñi ñi ci tënku ñëpp kenn ku ne lay àqam ñu di ko ko jox loolu euh, mënu see ñàkk ndax euh, liggéey bi rëy na lool te it kawe na kon Eh, loolu rek la eh, yaar yoon rek la ñun ñëpp ngeen bakku génn jublu gi xam ne Sëñ Tuubaa ngeen di liggéeyal ngeen wëlbatiku nag dimbali société bi ndax mu gën a ndax mu gën a mu gën a gën a gën a gën a gën a mën a dox waaw loolu nag mooy eh, def maslaa yi ci war ngeen seen ñi xam administration ñu seetal li ñu seet ngeen gis seen ñi ngi tënku ñi tënku ci liggéey bi kenn ku ne lay ak xam ñu xam ko ñu weer bu dañ jox ko ko loolu mënut a loolu mënut a ñàkk kon il faut que ngeen defee ko noonu daanaka kon yar yooyu rek la ngeen wëttandi ko ak yooyu seen biir lu ngeen mën a juyoo rek lu jëkk yu wute wute lu xel xi yu wute wute bi moom benn la ngeen góor góor góor nag kenn ku ne xeex ak boppam xeex ci boppam focc ucci sànni ucci jikkoom fee xool jublu gi rek ngeen àndandoo ko loolu rek moom mooy mën a am waaye xel yi bokkul jikko yu wutu xel yi bokkul noonu la demee kon déggoo gi jublu gi maslaa bi déggoo gi seen biir jublu gi maslaa bi loolu mënut a ñëw mënut cee ñàkk ci société bi te it ngeen xam ne liggéey liggéey bu rëy la. amul benn société boo xam ne yaakaar naa ne mën na ko war na ko mën a ëpp doole ci senegal wala bu ko lu ci ëpp doole bu doxee tuuti dana tiim société yëpp ndax Sëñ Tuubaa sëñ tuwa sëñ Tuubaa moom moom la boroomam may te boroomam may gi yëmanu ko lu ci mat lu ci xaj yi dana feeñ lu ci xat lu ci xaj ci àdduna dana dana feeñ da xaj na xajul sax ci àdduna waaye la ci xaj nag dana feeñ te wërsëg ci la bokk mayam gi wërsëg da cee bokk wërsëg da cee bokk ah, man sëñ sëñ Bilal am nañu waxtaan woo xam ne euh, dama ñëw rek ku fekk ci mbooloo mu ñëw fekk mu taxaw ci moom muur ma a nekk dama ne sukk mu gërëm sukk mu ko mu daal di jàpp suma loxo as mbaar su ndaw su gàtt ngi fi mu daal dem ba ci mbaaram maa moom rek mu toog mu toog ne fa toog ne ma dama la bëgg a wax wasug ma dana wax tuuti rek mun na ma sax dama laa bëgg a wax wërsëg murid yi ñuy wax fu bay bàyyi ko man tekk di ko déglu bi mu tàmbalee jàppoon naa ne li mu wax duma ci xam dara waaye xam naa lu mu doon def ci man mu ne ma wërsëg moom ñëw fi ma nga àllaaxira ab dërëm moo fi ñëw ab dërëm moo fi ñëw mu ne dërëm nag ab dërëm moo fi ñëw <laughs> moo mu ñeenti fi tànk yëpp rasulullahi ko moom tànk bi la ñëpp bokk tànk bi juróom-ñeent yëpp xaram la loolu mooy mooy fi daal sell moo ab dërëm moo fi fi ak tànk yi yëpp rasulullahi ko moom tànk nag fukk su la ñeent yëpp xaram la benn bi rek moo ci lew mu ne bi sëriñ bi ñëwee mu ne mu ne rasulullah yi ñeent fukki tànk yooyu ak jaru ñoom fi dafay xaju ndax ñeent fukki at yi amul atte ñaar fukki at yi amul ci jot ñu aj wërsëg woowee ci ñeenteel bi asamaan bi sëriñ bi ñëwee liggéeyal yoon te ba mu gënoon ko ñu aj wërsëg woowee jox ko te jëmul ëllëg jëmul ëllëg noonu sëñ Tuubaa sëñ Sëñ Sëñ moo ma ko wax moo tax ma ne ma ne li ko li suñu borom li mu may sëriñ bi wërsëg da cee bokk da cee leen la ci leen lenn rek la ci wërsëg lenn rek la ci kon bu ngeen xooloo xalaatee loolu da ngeen xam ne fi ngeen tàmbalee ak fi ngeen akk ji gaaw gaaw gi gàtt da ngeen xam ko da ngeen ci mën a xamee ne dara la dara ji muy sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa rek la ak mayam yëmul fenn waaw da ginnaaw ngeen taw feex nag jóg ne da ngeen di liggéey sëñ Tuubaa ah mu ne gàtte nu leen nan mu dara nag du ko yóbbu fa ko bëggee lu rek yii ma leen wax il faut que jublu gi day genn mooy liggéey sëñ Tuubaa il faut que ngeen déggu seen biir da ngeen di jikko yéeg xel yee xalaat yooyu yëpp sax génne leen ko xam naa ne loolu mën mën mën daal jaar naa ci loolu nañ mën na ko sëñ Moussa dama ko daa wax foofu may ñëw rek eh, na xam ne ënd ko jikko ënd maa ko xel kon wóor na ne jublu gi nga xam nga laaj te ngeen ngeen mën a dox déggoo déggoo laaj déggoo ko kenn ku ne day bàyyi ci xelam ngeen ànd rek jublu ci liggéey bi daja des mooy seet masaa yi ci war ndax da ci du mën a ñàkk da ngeen xam ñu xam ñu xam société ñu xam daraje ñi ci ñi ci tënku ci liggéey kenn ku ci ne lay àqam ñu ñu du ko ñu du ko jox jublu gi déggoo gi masaa bi waaye da génn jikko yi moom ak xel yi da ngeen koy génne fe sànni leen ko man man jaar naa ci xam naa ne mënees na ko dëggu gi rek moo ci am solo dëggu ci Sëriñ rek moo ci gi rek loolu rek la ca dolli ko mooy bu ngeen fi jógee li tàmbalee tey lépp lu ngeen di liggéeyati na ngeen ko tënk andil ma ko lu ca nekk lu ca nekk rek ci loo xam ne mooy tax moo moo koy gàllankoor wala loo xam moo koy tax a dem daanaa ko xam danaa leen ko wax sëñ Bas nekk moom kon noonu noonu rek la de noonu rek la ah la ca dolli ko nag bi ma bi may déggee digmati yi di jooy yeeg yooyu yooyu ba ma dama dama ne liggéey lenn lu ñuy liggéeyal Sëñ Tuubaa du ma seetaan mukk ñu di rax lu nam ma rax rek naa xam fa ma jaar noonu nag dañ ko na nga ne nan baal bopp lay tàmbalee la nga waxoon alaji baara digg naa ko maa yooyu yàlla moo fi nekkoon moom am lu mu laaj nga ne ko man ma digg du ma tere soo kii du ma digg du ma tere soo kii bàyyi naa ko bopp bàyyi ko sama bopp man mii nu laa fas yéene def wala yëpp lu ñu fas yéene lii nga xam ne moom yëfi sëriñ Tuubaa la yaa fi nekk sëriñ Tuubaa noo ko bëggee rek bàkki doon ko defee ñu ne amuñu tànn amuñu bëgg lépp tey ko sa loxo ji bënn na ko sëriñ Tuubaa képp dañu ay ay silmaxa lañ lépp ay dab dafi nekk saafaraal pësante xamee wuñ ko weñ nag dàbbali ji ab soow waaye xëy ko tax bu tàbbi ci waaye du bañ bëgg gopp rek boo tax duñ def ñoom te rek la ñun ñëpp dañu yi nag dañuy jéggal njaal bu fi bari mukk ci àdduna ndax bëgg naa sori ci dara ñëpp kenn loo nga suñu kii war nañu ko delloo fële te jéem a dugg ci ibaadatu bàyyi waaye aada ku ne aada aada la fii noonu aada ji yëpp ko bàyyi ci àll ba jël jël ibaadatu suñu ñu a joxe suñu suñu lépp mbooloo mi ñu teg dañ ko soloxo jëmbal nañu ko yaay lépp ci moom

xëy na doomu aadama nag moom nii la demee li nga wax suñu jukki kenn ku xam ne mënu ko ko ma ko ko dégg ko ñëpp ku nekk suñu saariwu dooma si yow ci moom ma bëgg ko de daal dema ah, doomu aadama bu jikko kenn ko benn jikko bàyyi ko juróom-ñeenti jikkoom mu wéy waaye maa ngi seer si yàlla mi bind mbooloo mi téye naa juróom kenn ku benn jikko jikko ba ma téye ci ñoom xam kenn mën naa wax lu ma gis nag muy bëgg Sëñ Tuubaa ah waaw noonu rek loolu laa téye ci ñoom de. di baax loolu laa téye ci ñoom. <laughs> kenn mën naa yàq doomu aadama nag. tubaarkalla kenn ku ne téye naa ci kenn mën naa yàq sama morom. tubaarkalla lu ma ci dox kenn ñëpp daal. ndax bis xam ne bopp xar yaa ko a ŋànk. ŋànk suñu bopp bi xar na. dimbali ñu ngi sëñ Tuubaa ba lii dara bu ci am tey ci laa nekk fi incha ñu ngi yàlla lépp loo loo xam ne dama ko ànd ak sax waaye dañ ko gën a ànd dañ ko gën a maa ngi seen biir lu xew lu mu mën a doon rek mm-hmm. waxuma sax lu ko jar lu mu ci mën a doon rek lu ko jaree dana ko yëg waaw ñoom daal lu ñu def lu ñu def bàkke xel rek waaye ñàkk xam rek la mm. ba dama aadama gis mu xër ay doomu aadama ñu juddoondoo mang ah. mangandoo bokku fi yaroo il faut que ñu jaxasoo rek dëgg la dëgg la kenn ko ne jikko dana am ji jot waaye jikko jooju ñun ñëpp dañu ko teg fële te yëpp jikko ko sëñ bi rek damay jéggal jël te jariñ mooy mooy sëñ bi ñu naan ñu gën a gën a suñu bopp de gën a gën a mbooloo bi ak pas-pas yëpp nga téye ko ndax pas-pas bi nga woote parce que bi nga woote ngir Sëriñ Tuubaa tax war nga ñu aw yoon ndax loo am na nga toppee la ko may na nga toppee lu mënut may doomu aadama amut man maa wax maa wax woon waaw man sama kilifa waaw dafa koy bàyyi ak boppam bàyyi ko ak sama bopp loolu laa jëfe boobu ak boobu ñi ñuy seet yàlla bi birul bàyyi la ñu suñu am rek na nga kilifa la te nit ku amee da nga am